وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم حمد وشكر لمن كل بعسارا لهور دون سقط عند سرسارا لهور أعوذ بالله أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله mbokk téléspectateurs yi nga xam ne yéen a baaxu suivre seen émission bi nga xam ne lépp dafa tënku ci biir jotaayu xam-xam ñuy faral di ci ànd ak kenn koo xamante ni wax dëgg yàlla day suñu kilifa di suñu xarit waaye di suñu njaatige ñu gën ko xam ci Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan moom lañ fas yéene jokkoo waatal tey waxtaane waat ak moom lenn ci xam-xam ngir jagleelaat ko askanu Sénégal rawatina adduna wërgal këpp Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan ñu ngi lay nuyu di la ziar waaye di la dalalaat ci biir jotaay bi macha allah rabbi. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wa inni ya uisuha bika wa suriyataha min aseytaani rajim rabbi auzu bika min amasati sayatin wa auzu bika rabbi an yaqdurun bismillahi rahmaani rahim bay taala ñu ngi lay fay nuyoo di nuyu mbokk jullit yi ak mbokk taalibe yi di leen wax leen bismillah jërëjëf Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan ci wax ba am solo boobu macha allah di wax ne askan wi namoon nañ la ndax jamono yëpp wax dëgg yàlla kenn ku nekk mooy woo téléphone naa man ana seen Cheikh Ibrahima xam naa daal ne ci tey askan askan yi tey njaboot keeg yi tey jaami yàlla yi rek waaye daal gannaaw nañ mbégte mooy bi ñu feggoo waxtaan ak yow tey nag ñu bëggoon na waxtaane li nga xamante ne moom la askan yëpp di sàkku bëgg cee xam bëgg cee am ay leeral tamit muy maanaam li nga xam ne mooy faatixatul kitaab ma bëggoon tey ci suñu laaj bu njëkk ci biir jotaay bi nga wax ñu lan mooy faatixatul kitaab waaw uh, Baay ñu ngi rafet rafetlu laaj bi di sant yàlla ba leen yàlla defalee ngeen am xelum laaj saar woowu saar woowu ni mu mel ci biir alquran mi ngi mel ni yonent yàlla Muhammad ni mu mel ci biir jaam alquran keroog bi nga xamee ni suñu boroom mi ngi koy wàcce ci yonent bi wax na ko ni ko jox naa la alquran boole ci faatixatul kitaab te faatixa mi ngi ci biir alquran nga xam ni wenn saar la ci biir saari alquran yi saar la woo xam ni mbooleem saar yi moom ëmb na leen boo jëlee alquran téeméeri saar yi ak fukk ak ñeent saar wu mu ci mën a doon lay njariñ ca moom faatixa ëmb na ko nga xam ne moom lañuy ñuy woowee ummul kitaab ndeyi téere bi faatixa nag bokk na ci ngëneel yi nekk ci moom nee li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sangub mbooleem doomu aadama bu yàlla bind ca la jiitu ak lay mujj noonu la fatiha doonee sangub alquran jëpp doon saar wi ci jiitu ca saar yee ko njëkk ak saar yee ko mujj waaw kitaab secret la boo xam ni àdduna bépp dafa leen waroon a leer jullit ñi ak ñu dul jullit képp kuy nit rek baaxoon na bu la yàlla dimbalee ci àdduna ñu leeral la lan mooy saaru alquran wi ñuy wax fatiha ndax ku ko xam na ko la macha allah jërëjëf sëriñ Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan ci leeral bu am solo boobu nga xam ne indil nga ñu ko tey ci ci Faatixatul Kitaab ndax askan yëpp a ngi koy laaj macha allah euh, détails yu bëri waaye def naa li nga ñu ci wax moom dara gënu ko cee leer macha allah waaye bokk na ci tamit bëggoon naa xam loram rôlam rôlu Faatixa ci biir alxuraan. daal ci biir alxuraan mooy nee naa la njariñi alxuraan yëpp daje na ci Faatixa Faatixa nag. nekkul ni nit ñi ñoo tànn ak jiitoom yàlla suñu borom subhaanahu wa taala moo ko jiital ci biir saar yi tey doomaadama jëf yi muy jëf mu jëm ci digganteem ak boroomam bokk na ci gannaaw ba nga xamee ni seede na ni yàlla mooy buur gëm ni yonent bi yàlla moo ko yónni te ndawal yàlla la lañuy njëkk àtte ca moom gannaaw ba nga xamee ni mesure na suñ borom a ngi koy topp jëf mooy day àtte ay julleem julli googu nag mbooleem julli goo julli alquran ja nga cay jàng saar wa ca yàlla jiital mooy fatiha fatiha saar la woo xam ne ci biir julli bu matee yàlla nee na même boo jàngaatoon weneen saar juum ca wala jàngaatoo weneen saar fàtte ko teewul julli ga baax na nga xam ne amul benn jullit bu nekk ci àdduna bi di xëy di julli te julli ga muy julli du ci jàng saaru fatiha mboolem diggante doomu aadama yi nga xam ni nag ñi ngi takk seeni sëy ci ndigalul yàlla ak sunna si yonent bi amul benn sëy bu ñuy takk te duñ ca jàng fatiha ñaankat yi ñaan ci àdduna amul genn ñaan gu ñuy ñaan te duñ ca boole fatiha nga xam ni fatiha ak jiitoom yàllaa ko tànn ci alquran comme ni mu tànn yonent bi ci biir nit ñi mu jiitu muy saar woo xam ni ngëneel yi ci nekk nit yàlla yi nga xam ni peeg nañ suñ boroom jigéen nañ yàlla nee na ñimewuñoo leeral fatiha li nekk ci biir lépp waaye nag am nañu ci joxe ay lim am nañu wax ni juróom ñaar fukki junni juróom-ñaar fukki junni ngi daje ci benn saar muy fatiha juróom-ñaar sekkare mi ngi daje ci biir fatiha fatiha ci boppam wenn saar wi rek dina faj junni feebar yoo xam ni bokkuñu ñuñ dal te bokkuñu ñu ko xam benn fatiha mën naa faj loolu kon fatiha daal bu ñu ko bëggee waxtaanee tey baytaal dina yaatu ndax li ciy njariñ nit yàlla yëpp dañ cee ànd dëppoo ci yàlla jiital ko ci biir alquran yonent bi digtal ko ñëpp te mooy saar wi nga xam ni mooy saar wi ëpp luñ koy sikkar ci kaw suuf si ndax nee naa la amul benn jullit boo xam ne yëkkati na ay loxoom jëme ko ca yàlla te du faatix lay jàng jërëjëf sëriñ Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan ci leeral boobu nga xam ne wax nañu ko ci li nga xam ne mooy faatiha ak njëriñ yi nga xam moom moom la àndee ak alxuraanul karim bokk na ci itam est-ce que njëriñ yi nga xam ne moom la am nekkee ci biir alxuraan est-ce que rôle am tam ci biir nit ñi lan lay daal doon moom. rôle ci biir nit ñi mooy lépp loo xam ni doomu aadama am na ko ci aajo. ak aajo boo lu mu mën a doon fatiha mën naa doon la ko koy fajal maanaam sifaa ula maanaam bépp. jàngoro bu dal nit mën na koo faj waaye bépp soxla bu nit am mën na cee jaar ba ba moom saafaraw ba tax mu mel ni dégg naa ci sa kàddu nga ne bépp soxla bu doomu aadama mën na faa mën na koo jaare ci Fatiha ba mu saafaraw ndax dama doon bëgg laaj ndax Fatiha moom mën naa boole ay nit naa boole ay nit boole ay nit day liñ ci xam ci saayir la koy def mooy Fatiha ndax góor ak jigéen buñ leen bëggee boole ci ndigalul yàlla ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallama li ñuy def buñ leen di maye mooy jàng faatiha teg ci ba boole nit nag weesuwul loolu boole ñaar ñu fa si ne nekk di sëy di ami doom ci ndigalul yàlla alxuraan jàng ci ñëpp xam nañ ko dama ne alif lam mim ba minal jinnati wan naasi booy boole ay nit faatixa ngay jàng doo ci jël weneen saar door caa teg nag ba am nañu cee teg eh, weneen saar waaye mu mën a doon daal faatixa moom ci boppam boole ay nit daa mel ni daa bokk ci rôle bi ko tax a gën a jóg te itam xeeti boole yi nga xam ni man xam naa ko nit ñi di ci ñaandu am na secret bu ma ci yor boo xam ne téeméeri façon xeeti boole mën nañ koo boole nit ñi man yama ci yor yëpp ñaan goo ci am secret boo ci am foo ko mën a jële boo ñëwee ci faatiha bii mën naa ko cee def te mën naa la ci génneel boo xam ne yow mënoo ko def ci bi nga yor faatiha di ko def moom faatiha daal bàyyi taal li ma la wax daal li leen ko taxalaat a laaj te yéen xamu leen ko waaye kii njariñam dépassé na ab journaliste rek toog ndax ñaari nit yàlla rek mën nañ cee waxtaan at te njariñ ci nekk du jeex torkal jërëjëfati encore la ñuy wax Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan ci yaatal gi nga xam ne yàlla yaa ngi koy yaatal waaye itam leeral gi nga xam ne macha allah yëpp yaa ngi koy leeral nga xam ne daal kon mel na ne Faté moom bokk na ci boole ay nit jàppoon nañ sax fi ne moom moom looloo ko tax a jóg waaye dégg naa la nga man siru bi ci nekk siru mu àndoon mën naa faj booleem jàngoro te man dama doon bëgg indication wi ndax Fatia dinañ ci faj tawatu doomu aadama waaw xam nga jàngoro judul ji metti ji dal nit la ca gën a tar mooy nit ku tàqali ko xelam nga xam ne nit ku tàqali xelam moom mënoo ko yóbbu di ko jox benn médecin ba mu faj ko ndax médecin moom mbirum xel mu dem mënu ci dara faatixatul kitaab nag téeméeri faatixa dañ ci faj dof waaw dof koo xam ne dof na dañ koy faj ci téeméeri faatixa dafa am nag lu muy àndal lu ndaw waaye téeméeri fatiha moom kull ku dof fu mën a dofee tubaab ak naar ak nit ku ñuul ci xeet yépp ku ko indi ma faj ko ci téeméeri fatiha dof bu mën a doon kon téeméeri fatiha day faj dof luy faj dof nag ku doful taxu ko taxul ñuy wax koo xam ne dara dal la ñu war laa faj faj la ci fatiha danañu yomb trop baytaala ma indi la ci fatiha leneen lu muy faj lu dul dof mooy day sox faj soxla bu mu mën a doon sans départ ci lim waaye nag nee nañ soxla doomu aadama bu mën a doon sëriñ bi nga xam ni dafa yor tur yàlla di ci ñaan bu jàngee junnib faatixa ca soxla booba noonu soxla ba faju dafa am nag heure am sarax yi muy àndal waaye junnib faatixa xajul ci benn soxla faatixa aaya bu ci nekkit daa am rôle boppam juróom-ñaari aaya yi aaye bu ci nekk am na rol boo xam ni mën na caa jóg aaye bu ci nekk itam mën nañ koo sas junniy rôle mu koy doxal nga tax ñu ne woon juróom-ñaar fukki junni yi sirru ñu ngi ci biir sirru bu ci nekk am na na ak junniy rol rôle mooy mbir mu ñu war a def maanaam bismillahi rahmaani wax nañ ni lu dul tukkal àdduna lañ nit yàlla yi jàpp ni mënu ko ndax àdduna moom kudd yàlla mënoo ko fay jëlee waaye lu dul loola nee nañ buñ ko poussé ci la mu dem lu mën a nekk ci kaw suuf lu mën a doon lu tukkal àdduna bi bisimilahi rahmaani rahim am na ca pexe bisimilahi rahmaani rahim wax nañ ni nit yàlla yi dëppoo nañ ci ni mooy baat bi nga xam ni moom la yàlla digal nit ñi ñu ëpp luñ koy sikkar ci kaw suuf mm-hmm. yonent bi jàngale na nee na lépp lu ab jullit di def bala koo def na wax bisimillahi rahmaani rahim wala mu wax bisimillahi ba ci wax nañ ni fatiha li ñu jàpp ni moom lañuy def doomu aadama mu dee su ñu jëloon ab kaas def ci tooke joo xam ni ku ko naan ci wenn waxtu nga faatu boo jàngee fatiha bu sell bu ànd ak ndigalul yàlla naan ko bu yeboo nga woo ñi dàqa tooke ci kaw suuf tooke jooju la rey kon mën naa tee dundub doomu aadama ña ko essayer bari na am na ku ñuy wax Xaalid ibn Walid jox nañ ko tooke mu jàng faatixa naan ko dara dalu ko faatixa wax nañ ni Baay Taala jëpp jàngoro joo xam ni ngelaw la lu nekk ci biir doomu aadama mën na koo génne kon ñiy faj tey faj ci wàllu seytaane ngelawul seytaane nañu xam ni faatixa day dindi ngelawul seytaane ci lu bët mënta gis nag ndax am na ci yoo xam ni bëtu doomu aadama du ca tege waaye fatiha day dindi loo xam ni ngelaw la lu nekk ci biir doomu aadama adduna rek dafa toll foo xam ni lépp looy wax nanga jox dalil nit ñi dañoo wax ni mocc suñu koy def danar ju nekk ci biiru doomu aadama la ñuy mocco muy ku mel ni ku ndox suuf màtt loolu réew mi yëpp a ko gis bu ñu demee ca ñu koy lugg ñoom fatiha la ñuy jàng aspiré ci deret dangar ji mu dañ su boobaa janja day wàcc te dootu ko rey suñ ko yóbbuwoon ca médecin ya ñoom dañ koy piqûre pour arrêter venin boobu léegi nag la nga xamante ni si ni moom lañ jàng ci sirru fatiha ba aspiré loola ñoom mën nañ cee jël dalil ni kon bu ngelaw nekkee ci biir doomu aadama fatiha mën na ko lugg mu dañ mooy mën nañ ko cee dindi mu dañ am na ñoo xam ne dañ koy bind di ko sangoo ci mbind bi nag moom Sëñ moo wax ni fatiha bii nga xam ni dañoo boo taqale araf yi ñu bind ko par araf araf araf araf bépp jàngoro boo xam ne dal na nit faatixa bu ñu tàqale araf yi mën na ko mën na mën na koo faj moom faatixa boobu nga xam ni nit yàlla yi dëppoo nañ ci bépp jigéen boo xam ne dafa am ëmb waxtu wam war a am doom jot doom ja munta génn ca biir ba kale wala doom ja am jafe-jafe juddu wala muy dépassé wala nit ña jaaxlu ca wax nañ ni juróom-ñaari faatixa rek buñ ko ko joxee ca bis ba mu ànd ak ndigalu yàlla ak sirru bi ci topp te gàtt la wax nañ ni du amaat juróom-ñaari waxtu ca biiru ndaw sa te génnul loolu ña ca mat seede mën nañ ci seede waaye faatiha moom day dox ci yooyu su ko defee ak yeneen question yi ñu bañ a xóotal waaye nee naa la saar woo xam ni suñ ko doon waxtaanee nit yàlla yi toog wax naa la téeméeri at di waxtaan ci faatiha du tax ngëneel yi ci nekk jeex baay taala sëñ Cheikh Ibrahima Ndiaye xam ne moom na seede moom man moom maa jiitu ci seede si ak yow ak sama soxna macha allah ñu ngi bu baax a laa taxaw te gën a guddal fan wi te gën a wéral cër yi wax dëgg nañ ci seede billaahi bokk na ci tam tey jii sëñ bi dégg naa la sànq wax fi ne waaye maanaam ñaanal nit ki ñaan wa antu ni mu ko bëggee ci ndigalu suñu borom bandul la ci Fatima waaw faatiha moom d'abord kenn daa mënta ñaan te boolewu ko ci te boo ñaanoon ci faatiha boolewoo ci leneen it ñaan nga day gën a gaaw saar nag wu ñuy sikkar comme ni ñuy sikkaree turu yàlla yi saar woo xamante ni si nii yant bi wax na ni gépp ñaan gu ñuy ñaan commencé ko ca faatiha ñaan nga mën nañu wax ni assi ka ko ñaan na assir ni nangu nañ ko te lu muy teg bëtam la balaa faatu yaa ngi dégg gépp ñaan goo xam ne ñaan nañ ko jiital ca ñaan nga faatiha ñaan googee nangu nañ ko te luñ assuré la te borom dina ca teg bëtam balaa faatu li tax nga xam ni faatiha moom moo àttan ñaan yi gépp ñaan guñ ñaan ba koy tëjit mën nañ koo tëjee faatiha ak salaatu ala nabi ñoom ñaar wax nañ ni ñu ëpp doole ci li ñuy ubbee ak ñaan ñu ëpp doole ci li ñu tëjee ak ñaan te faatixa moo gën a mat salaatu ala nabi ndax wax nañ ni boo jàngoon té boo julli woon ci yonent bi téeméeri junni yoon nga toog di ko julli ci yonent bi téeméeri junni yoon bul bul naw sa bopp mukk ci koo xam ni doof dafa toog ci jataay rek jàng fa téeméeri faatixa maanaam boo toogoon su dund gépp guddi gu jot nga fanaanee julli ci yonent bi junni yoon par bis am koo xam ne daa toog guddi gu jot mu jàng benn faatiha bu dee dañoo teg di peese mënoo ko ëppale dégg bi mënoo ko faatiha nag sekkara la boo xam ni dafa bekk ci sekkara bi nga xam ne mooy doole kaw asamaan ak suuf gën a jege nit ñi waaye dafa mel ni ñiñ muril kiiraay yi bariwul ci ñoom nit yàlla yi dëppoo nañ ci ni boo doon wër ay turu yàlla wër ko ci junniy sëriñ ñoom ñëpp ñu jox la kenn ku nekk aw tur te joxuñu la faatiha foo fekk ku dajeeg faat ku yor benn faatiha boo xam ne da caa am ndigal mooy si sëriñ li nga boo dundoon téeméeri at di wër ci àdduna bi ay turu yàlla ñu jox la turu yàlla yoo xam ni tur yooyu yëpp boo ko xoolee faatiha nekku ci nga dajee kenn koo xam ni benn faatiha dong la yor comme turu yàlla di ko jëfandikoo nit yàlla yi dëppoo nañu ni ki yor faatixa bi moo si sëriñ ndax lim yor dafa mat gën a mat li nga yor lépp gannaaw alxuraan daal mbooleem loo xam ni doomu aadama yor na ko génn ca faatixa na ko leer ni fu mu dajee koo xam ni sekkar faatixa la yor ak faatixatul kitaab li mu yor moo ëpp doole la mu yor moom loolu laa la ci mën a leeral mu toon lu am solo xam naa ni juróom-benneelu laaj bi fa mu bëggoon juróom-ñaareelu laaj bi fa mu bëggoon a dugg da ci indi tontu léegi waaye dama bëgg tam mu gën a yaatu ndax damaa doon laaj bëgg laaj ndax euh, Fatiha mënees na koy sikkar comme ni ñuy sikkaree turu yàlla waaye daf mel ni tontu nga ko waaye est-ce que moom fi mu toll dëgg-dëgg sikar si am na ay lim yu ko utal wala wala daal loolu ci mën a indil ci sikar sikar sikartu faatixatul kitaab waaw am na ay lim yuñ ci indi lim yoo xamante ni si nii bu danga da bëgg a wut alal alal joo xam ne bu ñëwee day toog ci yow te barkeel indil nañ ko ci ay lim indil nañ ci ni bu dee bëgg mucc ci li ñuy wax cat catu doomu aadama yi nag xam nga neexut mucc ndax am na ci nit ñi ñoo xam ni dañoo waroon a ubbi seen gémmiñ yi takk seen làmmeñ yi ba duñ mën a wax ndax lu ñu wax rek loolu day yàq am ci nit ñi ñoo xam ne dañoo waroon a jël ay morso takk seen bët yi ba duñ gis ndax lu ñu xool wax ca a yàqu yooyee nag neexuta mucc ndax ca jamono yi mag ña am na ci ñoo xam ni dañu leen daan interdit ñuy dugg ci yenn yi wala ñu ciy wax ndax ñoom dañoo amoon tookay làmmiñ lu ñu tudd mu yàqu wala lu ñu gis xool ko loola yàqu loolu moom téere yi ko wéral bari na waaye bokk nañ ci daal Fatiha am na ay lim baytaala lim nag dafa neexut a joxe ndax lim yi ci fàtiha day lim yoo xam ne ay secret la waaye xam naa ni ñi koy sàkku si fii dinaa leen ko gën di leeral waaye am na lim boo xam ni yoonu alal la képp koo xam ne yor nga lim boobu di ko di ko sikkar ci ñetteelu xaaju guddi gi moom doo tàqalikoo alal joo xam ni ci xibla yépp lay jóge am na ci lim boo xam ne day faj képp koo xam ne da am tawat ju nekk sa biir yaram te xamoo lu mu doon mooy tawat yi la jaaxal am na ci lim boo xam ni boo ko ci day sikkar tawat ja day dañ am na nag lu bari ci réew mi te naqaree faj fatiha da koy faj loolu dinaa ko dimbalee nit mooy kuñ sànni korte korte saaru xeetu feebar la boo xam ni am na ci xeet yi ci àdduna bi yëpp waaye Sénégal gii nag miin nañ ko ndax am na ci xeet woo xam ni ñoom moom la ñuy xeexee moom la ñuy sànnante dinañ ko sànni ab jàmbur dinañ ko sànni koo xam ne daa bokk ci ñoom dinañ ci tooñ waaye tawat la joo xam ne bu ñu la ko sànnee du xam nga ko yow bu ñu la ko sànnee man nga cee li li gën a néew daal ci ñu koy sànni ñi ci ëpp dañuy ñàkk seen bakkan su boobaa nag Fatiha ab défense la ca loola secret bi wér na wax naa ne ni la képp ñu jox tooke nga naan ko fekk na jiitu nga jàng Fatiha tooke ji du la rey waaye képp kuñ sànni kort ba mu dal la ci secret Fatihatul Kitab mën na ko cee dindil ci lu weesuwul juróom-ñaari fan ndax fatiha li tax muy dox ci juróom-ñaari fan juróom-ñaari ay yi moo tax bari na nag waxoon naa fii ci réew mi ni képp koo xam ne tëdd nga feebar feebar ba weesu juróom-ñaari fan na nga xool la dal te xam du feebar bu naturel waaw ndax feebar mën nañ koo faj ci diirub juróom-ñaari fan tookee ja nag mën na faa des di mettee ko fi waaye feebar jëmi fer moom day dañ waaye ku feebar di faju juróom-ñaari fan gisoo résultat man maa la wax ni la li ko dal na dem xooli leneen lu mu doon te bañ koo tuddee rek feebar topp feebar gi ndax feebar diiru juróom-ñaari fan bu ko amee jëmm doomu adama bu fa war naa war a wér baytaala jërëjëf sëriñ Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan ci leeral boobu xam naa ne fi ñu bëgg a jeexle rek mooy tey ji faatixa moom tey ji yan sarax mën a àndal ci maanaam ci mu wax wootu dimbali doomu aadama bi ci ci ci lu ne yi waaye tam waxaat ne nga ñu ci faati ay secret yoo xam ne am naa may jeexale après moom code yi jox rek fi dañu daal koy activé <laughs> lépp daal di ball rek saa ab saraxu saraxu faatiha moom du ma ko wax ci émission moom ah, xam nga faatiha sarax bi dong boo ko yoroon di ko def lu la neex mën nga koo def dangay të nit ñi sarax bi kese sarax bi kese sarax bi sarax bi kot ak lépp laa ci yemale sarax bi ma baytaal du ma ko jox kan kan junni faatiha bii ma la wax ànd naag benn sarax boo xamante ni si nii ku koy liggéeyi jarul ngay liggéey yow foo mën a nekk baytaala boroom alal yi dinañ la fa fekk te nit ñi nga xam ni da nga leen di liggéeyloo sax ñoom dañuy doon ay boromi xaalis baytaala junni fatiha bi ku koy werd xam sarax bi muy àndal fatiha nag dafa bari ay sarax waaye am na juróom-ñaari sarax yoo xamante ni si ni ñoom moom la gën a dëppool ci ñi ciy sàkku dara waaye néew na nit nga xëy wax ko mu jàng faatiha juróom-ñaar fukki yoon génne sarax bi te li muy sàkku ci alal amul lim bu toll noonu donc moom muy naan ko da nga war a am naa ma ne la sàkku ca bis booba amul lim bu toll noonu boobu soixante-dix yi muy jàpp kun jamono boo ko liggéeyee te génne sarax bi mu àndal dama ne ci bis bi maanaam boo ko defee ci guddi gi xëy suba sarxe balaa jant bee sowaat li nga doon sàkku nga jot ci te ci lim bi nga ko sàkkoo nga koy amee waaw kooku noonu la dexee moo tax saraxi faatiha daal moom duma ko wax kenn moom doo ma koy tëj bis bi ban waxtu lañ koy sikkar ci guddi loolu xalaatuma ko wax sëriñ Cheikh Ibrahima Ndiaye jërëjëf maa xam waxtu wi dab nañu waaye nag xanaa du ñor question bu mujj gi rek mooy tey ji lan ngay may askan wi eh, wax dëgg yàlla ndax gannaaw gaañi namoon nañ la askan wi namm nañ la ñaan la man ci fan yi ci ginnaaw wax dëgg yàlla li ma woo ci doomu aadama di la laaj daanaka bëri na lool nga wax nga may ñu li ngay may askan wi waaye boo pare tam la doon la seet rek nga jot la gis tam wax dëgg waaw askan wi daal li ma leen di leeral mooy tey ji saar wi sax danga ma cee bett moo tax génnewu ma lépp waaye dama leen ko doon junj rek eh, may naa leen ñu bàyyi ko xel bu baax te xam ni seen lépp ci la nekk seen fajug aajo saayir ak seen fajug aajo bàttin yàlla dafa ñël na leen ko ci ummul kitaab muy fatihatul kitaab su ko defee ñoom ñëpp mën nañ cee jariñoo waaye nag fatiha li ci mag mën a am la ci xale mën a am képp ku ci def yitte rek loo ci noo ko noo ko noo ko bëggee yàlla defalee la ko noonu saar la woo xam ne kenn du ci gàntu saar la woo xam ni ni ko nit ñi miine noonu la ko malaayka yi miine noonu la ko junne yi miine xam naa beneen émission dinaa la leeral awliyaa u junne yi nga xam ne dañuy liggéey fatiha fatiha nag lu jiitu woon ñun suñ diine ji di islaam bismillahi rahmaani rahim ji bokk ci fatiha moom nit yàlla yi daanañ ko liggéey te ñi ëppoon doole ci boroom xam-xam yi moom lañ yoroon boo jamee ci yonent yàlla suleymaan nguur ga la muy rëy rëy rëy ñaari kàngam ma fa ëppoon xam-xam junne ju ñuy wax euh, kii nitu yàlla ku ñuy wax asix bun balqiya moom basma la yoroon muy bisimilahi rahmaani rahim ak xifrit ba nga xam ne moo nekkoon ci junne ya nekkoon seen kilifa nekkoon seen kàngam turu dama ko jàppatul moo tax indiwuma ko waaye moom it bisimilahi rahmaani rahim la yoroon basmala te ñaar ñoo ñooñu jamonoy Suleymaan kii moo ëppoon xam-xam ci nit ñi kii moo ëppoon xam-xam ci junne yi su ko defee nga xam ne faatixa lu jiitu woon sax ñun suñ diine ji di islaam diine yi ko njëkkoon yonente yàlla yónni woon ñoom ci surru fatiha rek lañ doon doxee mooy bisimilah rahmaani rahim kon mi ngi noonu nañ ko bàyyi xel te gën cee def yitte ci jamono jii gisuma man lu nit yor tañ koy woowee njariñ la ca nekk di njariñ lépp dajewul ci bisimilah rahmaani rahim ba pare yeneen i njariñ nekk ci fatiha yoo xam ne bu defee yitte xam ko kon loolu rek laa doon indi leeral askan wi nañ ci bàyyi xel bu baax baytaala jërëjëf sëriñ Cheikh Ibrahima Ndiaye macha allah ci leeral bu am solo boobu noonu su ko defee xam naa ni sëñ Mor Diop moom itam ñoo ko ñoo ko ñoo ngi koy siyaare bu baax di ko ñaanal di wax ni tamit jëf ji nga xam ne jëfal na la ko itam wax dëgg yàlla yéeg nañu ko gis nañu ko te tubaarkàlla amu ci naa yëg lool te nitu yàlla moom ku ko jëfal yàlla nga jëfal defe naa ni kon ñoo ko ñaanal bu baax a baax moom it sama borom taxawu ko xam ne daal jëf ji moom rey na lool moo tax ñu taamu sax defe ko nii jël jël jël jël émission bi jagleel ko faatixatul kitaab ndax tubaarkàlla fi mu toll nii mi ngi moom it ñu dolli ko ñaan ndax yonent bi dañoo digal ni ñu bu leen nëbb jëf yu baax yi ngeen di defalante ndax way réere sax ñoom la ñuy defalante ñu ngi koy yëkkati di ko wane ñëpp di ko gis nit nag bu la dee ñaanloo jënd yére bu seer boo xam ni ñaar fukki junneeg lu teg lay jar fay ca ñaw ba fukki junneeg lu teg jox la ko rek ngir yàlla ak am yaakaar ci yow ah kooku it jar nay fàttali ko su ko defee moom Mor Diop moomu ca Italie ñi ngi koy ñaanal di ko xamal ni ko teraanga jii mu ñu yónnee eh, xeebal luñ ko ko te itam ñu ngi ci sàkku yàlla suñ borom mi taxoon mu def ko fay ko ci yiw fay ko ci lu kawe njortam lam ci jublu mooy taaraw jataay yi rek ni ko ay moromam di defee lépp loo xam ne nag defa nga ko ci koo xam ne danga yaakaar ni dara yàllaa nga ca moom li nekk ci ñu te suñu borom def ko ci yàlla na ko ci dimbali ci barke alquran ak barke fatihatul kitab bi ñu doon waxtaanee moom it ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal. jërëjëf sëñ Cheikh Ibrahima Ndiaye ci sëñ Mor Diop moom itam wax dëgg yàlla noo ngi ko ñaanal foofu ci Italie fa mu nekk tam yàlla yàlla saa borom taxawu ko taxawu mbooleem ñi xam ne soppe lañu am di jàmm lañ wóllëre lañ xarit lañ wala ñuy saa ñuy saafonteeg jotaay yi nga xam ne ñu ngi koy def ak yow ngir jagleel askan wi kenn ku nekk rek mu mën a xippiwaat bëtam xool xamaat tam fi muy taxaw te xam ne fi mu wax dëgg yàlla lii mboolem li suñu borom a te saa su ne yàlla li ma gën a neex ci jotaay yi ñu am ak yow doomu aadama yi ci tolluwaay ci jagle ci daraja bi nga xam ne suñu borom jox na leen ko ngir ñu mën a gën a xamaat seen bopp gën a xamaat fi ñuy taxaw kon yow it ñoo ngi lay sant bu baax a baax te di la ñaanal sa borom taxawu la lan mooy doon kàddu yu mujj yi ci jotaay bi ni macha allah waaw kàddu yu mujj yi dolli ñaan rek ci réew mi tawat ji yàgg na ci loxoy doomu aadama yi mënuñ ci dara yàlla na yàlla wàllu ci barkab Fatiha euh, ñàkk gi mi ngi fi yàlla na ko fi yàlla jële ci barkab Fatiha euh, li xew ci réew mi ci jamono yi ñu ginnaaw ci ginnaaw maa ngi woon ci ay tukkiwaay lépp dafa umpuma ci maa ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi te rafetal yéeney doomu aadama yi te boole leen ci xol ndax ñun kat yonent bi sang bi dañoo wax ni ñu na ngeen jàppante te doon benn te itam na ngeen di am yéene yu rafet ci seen biir ngeen dimbalante te yàlla dong tax ndax yàlla rek moo mën a dimbali ab jaamam nihmal mawlaa ndimbalul yàlla moo ñu mën a sowe yàlla ñu ngi koy ñaan mu sowe ñu ci barke Faatihaatul Kitaab ak jullit yi xam ne yéen doon teewlu jotaay bi sant leen gërëm leen ñaanal yàlla kenn ku ci nekk itam fa mu nekk lay bëggam ak yéenam ak wébatam a baax sëñ Cheikh Ibrahima Ndiaye ak suñu borom doole a dëgëral taxawaay a wéral cër yi di mën di am jotaay yu mel nii ngir mën a leeralaat askan wi kenn ku ñu fam a taxaw ba mën a fa wàkkirluwaat ci digganteem ak suñu borom waaye digganteem ak jaam yàlla yi di leen jox dig daje incha allahu rabbi taala ci beneen jotaay rek ak seen jotaayu xam-xam bi nga xamante ne ñu ngi koy def ak seen Cheikh Ibrahima Ndiaye asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم حمد وشكر لمن كل بعسارا لهور دندون سقط عند سرسارا